internet sans limite sn point com ñoo leen di nuyu di leen ziyaara di leen dalal bu baax a baax ci sans limite TV nous venons tout juste d'apprendre le décès de l'ancien président de l'Olympique de Marseille euh, muy euh, Pape Diouf moom nag moom moo daal di succombé ci li nga xamante ni moom moo di feebar boobu dugg biir euh, Sénégal muy Covid 19 damay daal ci bàyyi sama naataango bi junior rek mu daat ñuy jox quelques leeral ci décès ki nga xamante ni moom moo di Pape Diouf junior maa ngi nuyu di la ziyaar jërëjëf Abdou maa ngi lay nuyu di la ziar di wax rek ki nga xam ne moo di Pape Diouf nekkoon euh, ancien président de l'OM muy di Olympique de Marseille mi ngi décédé tey ci bi nga xam ne ginnaaw bu xamante ne di di ministère de la santé et de xamal na ne ki nga xam ne moo di Pape Diouf nekkoon euh, deuxième cas grave bi nga xam ne moom moo ko dal di feebar bi di coronavirus euh, ginnaaw nag biñ ko doon waaj évacuer en France le le décédé selon les information de la RTS yi nga xam ne ñoom ñoo joxe information bi mu nekk nag nouvelle bu tiis ki nga xam ne moo di Pape jouf euh, pour ñu ko xamul moom moo nekkoon président OM du Olympique de Marseille diggante 2005 ba 2009 euh, ki nga xam ne moo di euh, Pape Diouf boo xool mi ngi juddoo fa la ca Euh, Tchad ci dëkk bi ñuy wax euh, Abéché foofu la euh, juddoo ginnaaw bi la fekk si ay juróom fii ci Sénégal mi ngi juddu ca 1951 nekk journaliste sportif boo xam ni dem na sax ba reconvertir nekk agent de joueur gannaaw ba mu defee carrière bu mag ci wàllu agent de joueur yor ay footballeur yu mag yu mel nii Basile Boli nga xam ne moo nekkoon euh, footballeur défenseur bu Marseille Pape Diouf euh, plus tard dem na ba nekk li nga xam ne moo di président club bi nga xam ne mooy club de cœuram di Marseille ñi nga xam ne ñooy euh, Antoine Joseph Antoine Bell euh, ku ci mel ni Basile Boli ku ci mel ni Marcel Desailly ku ci mel ni Bernard Lama ak euh, Sylvain Armand William Gallas Grégory Coupé pour ne citer que cela ñoo ñëpp jaar nañ ci loxo ki nga xam ne moo di Pape Diouf nekkoon président OM en mille 2004 moom nga xam ne ci at boobu sax la rejoindre club bi di Marseille nga xam ne moom lañ ko nommé woon manager général général du club euh, après le départ de Christophe Boucher ci automne 2004 boobu mu mel nii euh, dañu jot ay information yu yàggul dara ci quatre heures de temps la toll euh, que ni il a été placé sous assistance sous sous assistance euh, respiratoire depuis samedi depuis samedi la amoon ay complication dafa mel ni moo tax bi nga xamante ne ministère bi def na démb ab communiqué am di wax que ni di souligner dafa am ñaari cas yu grave yoo xamante ni dañ leen defal li nga xamante ni moom moo di assistance respiratoire ndax dañu amoon ay jafe-jafe nooyi mu mel ni Pape Diouf ci la bokkoon te depuis samedi day xeex ak nga xamante moom moo di euh, feebar boobu. waaw ginnaaw bi nga xamante ne ministre Abdoulaye Diouf Sarr euh, ci communication bi muy def ci wàllu coronavirus bi mu ñuy wooye point du jour bi muy defee ce lundi 31 mars euh, point du jour xamal na ni Sénégal contracté na ci coronavirus bi lu ñuy wax ay cas grave mu ñuy woolee ay nit. ñoo xam ni maanaam dañ leen di euh, réanimer fi mu toll nii daanaka mënuñu sax noyu seen bopp moom la ñuy woowee ay sous assistance respiratoire nga xam ne euh, ñaari personnalité yooyu dañoo nëbboon seen tur waaye gannaaw bi nga xamante ne kii di Pape ju faatu na ci lañ jot information buy wëral que ne moom ci boppam ci ñaari cas yooyu la bokk ba daanaka sax nga xam ne moo nekkoon famille am ak ay proches am defoon nañ tous les moyens en œuvre pour ñu évacuer ko Nice euh, moom lañ doon waajal pour euh, jëlal ko euh, jet privé boo xam ne daanaka sax jàpp nañ ni agsi woon na fale ci aéroport Léopold Sédar Senghor mais ci diggante bi lañ ñu xamal ni ne malheureusement jatul voyage ndax ci fa mujjee faatu. mu mel ni rek le monde du foot et en deuil ndax ki nga xamante ni moom moo di Mbappé daati na koy wane ci benn tweet bu mu def daati xam ne rek ni plus aucune place pour la rivalité ce soir très triste d'apprendre le décès d'un monument de notre football mes condoléances à la famille Diouf mu mel ni rek ñi nga xamante ni ñoom ñooy football ñi ci mel ni joueurs yi gën a siiw commencé nañ di poster ay tweet di jaale ki nga xamante ni moom moo di Pape Diouf. waaw euh, gannaaw ki nga xam ne moo di euh, Kylian Mbappé di jour PSG de Paris Saint-Germain nga xam ne mooy rivalu Marseille euh, daanaka soit li nga xam ne ñooy monde di football bi yëpp ñoo yëg décès bi nga xam ne daanaka ay simili rek la am ndax ki ci mel ni David Ginola gis nañ mu. wane benn def réaction euh, wax ni c'est quelqu'un qui a compté dans le foot qui a toujours œuvré pour la France et le continent africain il a toujours essayé d'amener des idées nouvelles il a été le président de l'OM ce qui n'est pas une chose facile c'est triste de voir des gens de qualité qui s'en vont en espérant que d'autres prennent la place qu'ils soient portés sur l'avenir du ballon on en a besoin gannaaw kooku ku ci mel ni Kylian Mbappé euh, wax na euh, nga xam ne mooy euh, disparition bi convaincre na ko ku ci mel ni Valère Germain nga xam ne sax moom mu ngi football ci club bi nga xam ne moo di club bu Marseille nga xam ne moom sax Pape Diouf moo ne woon président boobu wax nañ ko de cinq à mille 2009 moom xamal la ne ne ci compte Twitter am ni je veux avoir une grande pensée pour lui et ses profs. ñi nga xamante ne gannaaw loolu ku ci mel ni Roton moom aussi euh, wax na naqar bi nga xam ne moo ko dal gannaaw bi mu yegee loolu mu ne j'ai beaucoup de respect pour l'homme qui a vécu dans le foot et qui est passé par toutes les étapes par tous les post quasiment à part joueur je suis peiné parce que ce putain de virus noonu la ko waxee la emporté mu mel nii dafa am xol bu jeex ku ci mel ni Jean Michel Aulas nga xam ne mooy président olympique euh, lyonnais nga xam ne moom it euh, nekk na personnalité bu mag ci France euh, moom jot na wax moom it ci Twitter li nga xam ne moom moo ko dal naqar bi nga xam ne am na ko ak désolation bi mu ne Pape a été un grand président très performant respectable et respecté j'avais un profond respect pour lui je m'associe à la peine de toute sa famille et de tous ses amis ku ci mel ni Roland Courbis aussi nekk euh, chroniqueur fële ci RMC moom it euh, jot na wax ci lu ni mel ak gannaaw moom ku ci mel ni euh, Michel Hidalgo gannaaw bi mu génnee àddina tamit nee na un grand homme il était pour l'OM et pour la ville de Marseille mu mel ni rek ministère de la santé et de l' sociale ñoom tamit daati nañuy posté di xam ne rek ni le Sénégal enregistre un premier décès il s'agit de l' ancien président de Marseille Pape Diouf décès survenu ce mardi à l'hôpital Fann de Dakar ñi ngi présenté ses condoléances ñoom tamit à sa famille et au peuple sénégalais di xamle ne rek ni ñu gën a jëlaat suñuy matuwaay ak suñuy jumtuwaay ci li nga xamante ni moom moo di xeex feebar boobu nga xam ni moom moo di coronavirus lii lañ leen indiloon tey eh, ci benn récap rek eh, ci li nga xamante ni moom moo fi xew eh, ci réewum Sénégal askan wi yëpp mettitlu ko ndax ki nga xamante ni moom moo di Pape Diouf moom moo fi daati bàyyee ko mu nekkoon mu monument ci li nga xamante ni moom moo di football bi ñëpp ràññee woon ko lool ñoo ngi jaalewaat bépp famille boo xamante ni rek ñoo ngi jaalewaat la famille Diouf ak peuple sénégalais bépp di leen joxaat dig daje. mu mel nii euh, dañu jot ay information yu yàggul dara ci quatre heures de temps la toll euh, que ni il a été placé sous assistance sous sous assistance euh, respiratoire depuis samedi depuis samedi la amoon ay complication dafa mel ni moo tax bi nga xamante ne ministère bi def na démb ab communiqué am di wax que ni di souligner dafa am ñaari cas yu grave yoo xamante ni dañ leen defal li nga xamante ni moom moo di assistance respiratoire ndax dañu amoon ay jafe-jafe nooyi mu mel ni Pape Diouf ci la bokkoon te depuis samedi day xeex ak li nga xamante moom moo di euh, feebar boobu. waaw ginnaaw bi nga xamante ne ministre Abdoulaye Diouf Sarr euh, ci communication bi muy def ci wàllu coronavirus bi mu ñuy wooye point du jour bi muy defee ce lundi 31 mars euh, point du jour xamal na ne Sénégal contracté na ci coronavirus bi lu ñuy wax ay cas grave mu ñuy woolee ay nit ñoo xam ne maanaam dañ leen di réanimé fi mu toll nii daanaka mënuñu sax noyu seen bopp moom la ñuy woowee ay sous assistance respiratoire nga xam ne euh, ñaari personnalité yooyu dañoo nëbboon seen tur waaye gannaaw bi nga xamante ne kii di Pape ju faatu na ci lañ jot information buy wëral que ne moom ci boppam ci ñaari cas yooyu la bokk ba daanaka sax yi nga xam ne moo nekkoon famille am ak ay proches am defoon nañ tous les moyens en œuvre pour ñu évacuer ko fële ca France en Nice euh, moom lañ doon waajal pour euh, jëlal ko euh, jet privé boo xam ne daanaka sax jàpp nañ ni agsi woon na fële ca aéroport Léopold Sédar Senghor mais ci diggante bi lañ ñu xamal ni ne malheureusement jatul voyagé ndax ci fa mujjee faatu. mu mel ni rek le monde du foot et en deuil ndax ki nga xamante ni moom moo di Mbappé daati na koy wane ci benn tweet bu mu def daati xam ne rek ni plus aucune place pour la rivalité ce soir très triste d'apprendre le décès d'un monument de notre football mes condoléances à la famille Diouf mu mel ni rek ñi nga xamante ni ñoom ñooy football ñi ci mel ni joueurs yi gën a siiw commencé nañ di poster ay tweet di jaale ki nga xamante ni moom moo di Pape Diouf.